wone ngeen seen cofeel wone ngeen seen bopp wone ngeen seen ànd ak Mamadou Mamour Diallo kon dama leen di ñaan ma ngeen may ma ma waxtaan ak yéen tuuti jox leen rendez-vous nag après tabaski allah ñu daje ci place bu yaatu waxtaan waxtaan bu yaatu

kenn du ko jeex mbokk yi ñii cooy coow lépp ma ne ñii coow lépp lenn moo leen tax a jóg bëgg siis bi rek puusal ma toog nag yaakaar naa ni amut fenn boo amee fula da ngay toog ba mu dëgër këcc ku la bëgg a puus nga puus ko mu dal fale loolu duñ ko nangu

kenn mënu koo taal kenn mënu koo foye te ñun am nañ confiance suñu état am nañu confiance ci suñu ñu jiite suñu état te li ñuy def dal na suñu xel ñi ngi ànd ak ñoom guddi ak bëccëg te président Macky Sall nag ma wax leen mbokk yi balaa ñu koo xam xam li mu def xam mooy kan mu jóge fi ay atti kanam chinois bi dafa waxone un grand bond en avant révolution chinoise ki ko doon def ñu tuddee ko Mao dafa théoriser won lu ñu wax le grand bond en avant moy djégo bu mag bo xamné bi ken mënu ko djégo mais ku am xel tay xam nga ni Sénégal 2012 ak légui djégom ken mënu ko nat lolu yeen ñëpp xam ngeen ko kon nak na ñëpp àndandoo déglu le président du mouvement dolli dem ci terrain bi waxtaan ak nit ñi ñu bañ ku leen keuf bañ ku leen yobale ndax loolu baaxul ci réew mi tey baaxul ci réew mi ëllëg et ñun mouvement doole dañu yàgg dañu yàgg nekk ay militants yu discipliné dañu yàgg nekk ay ay militants yu yaru yu am teggin lépp lu mu bëgg boobaak tey ñu ngi ci ànd ak moom di ko liggéey lu mu bëggaatam ñun loolu la ñuy bu joxeñee loolu la ñuy dagg ndax moom la ñu àndal moom la ñu wóolu moom lañu gëm moom lañu ñu gis gisuñu keneen te nag wolof dafa ne yàq saaga yàkkamtee xeex la saaga yàkkamtee xeex la li mu war a wax bu jotee moom dana ko waxal boppam d'ailleurs wax na ko ci bopp waxal na ko boppam nañ ko déglu kilifa nag bu nañ ko déglu li ci war mooy ñu déglu ko ànd ak tey ak dal te nag liggéey loolu mooy le premier message deuxième message bi ci des mais mobilisation bi ngeen wane tey fii ci Louga mais wane na ni Louga mi ngi ci gannaaw

avec le président de la République Macky Sall li ngeen def tey wane ne ko à outrance kon coow lee bari rek coow lee bari kon nag nañu gën a taxaw te xam ni ñun ci gannaawam lañu nekkoon démb ci gannaawam la nekk tey ci gannaawam la ñu nekk ëllëg